ndax tey dañ fi dajalee suñuy membres yi surtout ñi nga xam ne ñoo ngi jóge ci région yi gox-goxaat yi Kédougou Tambacounda ñoom ñëpp ñu ngi daje fi ak suñu coordination exécutive nationale ak staff bi parce que simplement dafa am benn gëstu bo xamni dañ ko def ci Sénégal def ko Burkina def ko Bénin gëstu bi joxé ni ñun ñëpp war nañu xoolaat lan moy suñu doole en tant que organisation de la société civile ndax li ñuy def mo ngi mat am déet lan moy suñu jafé jafé aussi mais xoolit lan moy opportunité fan lañu wara mëna jaar ba nga xamni éducation dina mëna gëna téggu ci li nga xamni mom lañu bëgg mais ensuite euh, nan fan lañu mëna jaar aussi ba ñu gën ko fulal ba nga xamni duñu du ñu bedd benn xale donc loolu mo tax ñu dajale tay suñu suñu suñu suñu suñu suñu nit ñi ñu joggé ci région yi liñ ci jublu te mu ëpp ci solo pour ñun moy nu ñuy fexé ba ki nga xamni da fay war di wax suba ci mbirum njàng ak njàngale mu xam limi wax moo tax ñuy def formation renforcement de capacité nit mënta xeex mbir bu mu xamul xam suñu gouvernement lan la signé lan la diggee ci kaw ci kaw kawa kaw moy kaw agenda 2030 lan la signé fi ci Afrique lan la digué fi ci biir Sénégal donc texte yooyu yëpp ñu maîtriser ko xam nan la waxtaan ak askan bi ba nga xam ni mbirum jàng ak jàngale duñ ko bayé seulement ak kat ya gouvernement ba mu am une véritable communication sociale ba par waajur bu né xam ni dama wara xam suma dom ban école la nekk kan mo koy jangal nan la togué ndax am na ndox amul ndox nan la engagé communauté bi fexe it ba suñu gestion de projet ñep xam nañ ni adduna bi daf nekk àdduna xaliss amatu fi donc lu ndaw li fi am nan lay mëna amé amee ba nga xam ne kenn duko jaddal lenn lolu mom lañuy waxtaan ak suñuy suñu suñu gox yi japp nak ni buñ ci joggé jógee dinañ mën am outil yi leen permettre buñu éggé ci souf parce que gëm nañ ñu ñun lépp luñu wara war a def ñoo ko def ci gox goxaat yi dinañ mën jouer pleinement seen rôle. moy muy ñaar fukk nit ak juroom yo xamné tay dajé nañ fi joggé ci région yépp ñukay koy wat nak ci octobre ndax seulement ak Covid bi bëggu ñu leen woon dajalé ñom juróom fukk yépp bi programme la bo xamné ne ñoo ngi ko tekkee nag ci ci ci ci anglais moy education out loud bokay koy tekki dafay wane ni euh, liñu ñu bëgg mooy si

ñoo xam muy enfant à besoins éducatifs spéciaux mooy ñu xam dañu am laago wala muy jigéen wala ñu dëkk ci ay gox yu sori wala ñu seen seen seen waajur amuñu doole nan la ñuy fexe ba dégg baat yooyu yëpp nan la ñuy fexee daal ba mbirum jàng ak njàngale bañ a yem kese si diggante gouvernement ak jàngalekat mm-hmm. nan la ñu koy ubbalee askan bi yëpp loolu daal moo tax ñu tuddee ko éducation out loud